discoursu sëriñ bi war naa dellu képp kuy murit ndax moom li bëgg bi mu ko bëggee wowul taalibe yi ni leen lii laa bëgg daa dem wax ak ki nga xam ne moo moom taalibe yi moom xole taalibe yi mu defal ko li mu bëgg kon nag discours bi président de la république na ci jànge ni mënta fay Serigne Touba mënta fay njabootu sëriñ Touba mënta fay xalifa général de Mouride lépp loo xam ne amoon na ko yéene ci liggéeyal dëkk bi ak bëgg ko ci dëkk bi ñu ngi koy ñaan mu gën cee góorgóorlu ndax lii sëriñ bi wax doy na sëkk ndam ci moom doy na sëkk sag ci moom doy na sëkk ndëgërlaay ci moom doy na sëkk wéeruwaay ci moom na gën a góor góorgóorlu te xam ne sëriñ tubaa ko fal kenn falu ko li mu am sëriñ tubaa ko moom te mooy joxe nguur moom la yàlla jox mu wax ni inna allaha huwal muqi wa ana alqaasim yàlla mooy joxe waaye man may séddale bi sëriñ Mountakha bëggee li mu bëgg da koo wax ki nga xam ni dégg ak nag boromam lu mu bëgg boromam defal ko moo tax président ndam li mu am mu am ko kon na góorgóorlu ci dëkk bi góorgóorlu ci Touba góorgóorlu ci njabootu sëriñ Touba góorgóorlu ci taalibi sëriñ Touba yi te xam ne lépp lu mu def rek boppam la ko defal di ko sentir moom it di ko gërëm ci ñëw gi nga xam ne ñëw na yeesalaat ak taalibeem ci sëriñ bi yeesalaat pas-pasam ci sëriñ bi feddilwaat kóllëreem ak diggante mag njabootu sëriñ Touba kóllëre googu njaboot gaa ngi koy jàppal di ko téyel